sàggan bunt bu seytaane ubbi la boo xam ne saa su ne mi ngi wër kum ca ba ñaareel ba mooy bànneexu bakkan buntu la bu seytaane ubbi boo xam ne bis bu sat mi ngi seet kum ci jéem a ba te bu ca kooku duggee day tëj bunt ba ca gannaawam <coughs> ñetteel ba mooy mer mer tam buntu la bu seytaane ubbi boo xam ne saa su ne mi ngi wër kum ci ba ma wax bu ba ma xëy kooku ba mu dugg ca biir da koy tëj ci ginnaawam gàll ca ab bunt gàll ca bant buñ ko ubbi du génn bi ma jëkk wax suñu borom mi ngi koy dànkaafu ñi nga xam ne nangul nañ ko kim doon am na fi muy waxee ne wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa xiifatan wa duna aljahri min alqawli bilxudwi wal asaali wala takun min alxaafilin bi ci topp muy bànneexu bakkan yàlla da koo limaale ci yi nga xam ne saa bu nit xëyee moom lay wër wala bokk na ci yi muy wër zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisa walbanina walqanatir almuqantarati min aldahabi walfidati walxayli lmusaw walxayli almusawamati walanami walxars dalika mataacu alxayaati dunia wallahu indahu xusnu almaab ci mer eh, yal nañu ci yàlla musal am na fu muy wax ne wa man yaqtul muminan mutaamidan fa jazaauhu jahannamu xaalidan fiha wa gadiba allahu alayhi am na fu mu tuddee gadab it fi ko yahudi yi ŋàññe nga xam ne fay na fa wax laata jëf di am wa qaalat ilyahudu yadullahi maglulatun gullat aydihim wa luinu bima bima qaalu am na ku jiitu ba muy wax ne wa xadiba wa xadiba alayhi wa jaala minhum alqiradata wal ganasira wa abada taaxuut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nit ñëwee ne ko dama bëgg nga dénk ma ndénkaani la yonent bi weesuwu ca bul mer bokk yi nag ñetti bunt yooyu seytaane ubbi bunt yu bari la dañ caa tànn yooyu waaye ku ca seytaane ba max ba man ma ni ba génnaat na jëfandikoo lu ñuy wax tuub ndax seytaane du dugal nit mukk fu mu dul amee bàkkaar seytaane du dugal nit mukk fu mu dul amee bàkkaar tuub nag suñu boroom ubbi na bunt ba moom fëlëngal ko te du ko ubaat mukk nee na wa inni la gafaarun liman taaba wa amana wa amila saalihan thumma ihtada koo xam ne def na lu suñu borom di tere te seytaane moo ko ubbil benn ci bunt ya ma koy jaare ba ba max ko ca ba mu ximmaliku su génnee na bàyyi fa te fas yéen du ca tegaat tànkam suñu borom nee na su ko ko def mu jéggal ko yal na yàlla boole jéggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne amul benn bàkkaar bu nit di def ba mu tax koo naagoo ci ne lii yàlla du ko jéggale déedéet laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamian nee na ku def loo xam ne dem na ba jàpp ne yàlla du ko mën a jéggal mukk nee na nee na ñokket na na ñokket dem bu ameeg làpp bu fekkee ci sangu lay jaar am ko wala su fekkee jàpp lay jaar am ko nee na na julli ay rakkaa bu noppee mu tàllal loxo yàlla yàlla mën na koo jéggal yàlla noonu yàlla boole jéggal daf caa teg jàng aay bii nga xam ne moom la suñu borom di wax ne lu waay man a def ak lum juunu juunu bu xamee ne daa juum na xam ne yàlla ma nga fa waxoon rek bu ca ne xelam ne yar rek na daal di jéggalu yàlla te daal di ciy génn bañ bokk ci nuur ci naan mu def moom yàlla duutu ko mën a jéggale moom déedéet walladina ida faalu faaxishatan aw zalamu anfusahum dakaru llaha fastaxfaru li dunubihim wa man yaxfiru dunuba illa allah wa lam yusirru ala ma faalu wahum yaalamuun yonent lu yomb yomb la nee na ku jàpp njàpp mu mel nii may def moom yonent bi sallallahu may wax jóg julli ñaari rakka yoo xam ne yàlla la fa teg ci kanamam di ko xool waxin la waaye teewlu ci yàlla rek daal ànd ak tiit ak jàq nee su boobaa yàlla jéggal na ko bu ko yégee ak bu ko yégul tam bañ nag di ca delluwaat di ko def di jégguluwaat di ko def di jéggul loolu mooy moom la ñuy tuddee islaar nuur ca dégg ñu ne su ko def yàlla dana ko jéggal rek bu ko defee mu fab jéggul teg ca pegg ba bu defee li may def ba noppi jégglu loolu font fontoo suñu borom la yàlla ñu ci yàlla musal dellu ca teg ne da yaakaar ne jéego yi ngeen di jégg di dem ca jullikaay ba yàlla du leen ko bindale axakay kon lañ ciy dégg mooy ku bari ay tànk di dem ca jumaa ja wala ca jàkka ja jéegoom yooyu yépp yàlla mën na jar sukkandiku faral ko ay bakkaaram yam xam ak yam xamut yépp mu joxañ ñu nag lu mel ni barab bi ñu daje muy julli ji ajjuma nee képp koo xam ne laab gi mu soxla jàpp ko man jàpp mën na ko bu ko sangu waree mu sangu sopp nañ nag kuy julli ji ajjuma mu sangu nee mu dem ca jumaa ja ne cell ba julli jot mu julli sëlmal dem yàlla mën na ko jéggal bàkkaaram ya dox diggante aljuma ji mu mujjoon a julli si ak ji mu julli si ba noppi su fekkee defu fi bàkkaar bu rëy rëy boo xam ne tuubu boppam lay soxla ba noppi mbuuñaa ko nag dolli ko ca gaaw dibéer ak altine yal nañu ko yàlla defal ba muy dénk ku ñuy wax Muaaz ibn Jabal bokk na ca la mu ko dénk bis ne ko deel teg sa tànk ci taqwallah mooy bi jëfe ndigali suñu borom mi sa kem kàttan ni ko sëriñ saalix jàngale woon ne yàlla daa wax ne yaa ayyuha allazina amanu taqullah xaqa tuqaatihi léeg léegi tey nga dégg ñu ne ku ne mënisu ko waaye nee na ku ko mënut it na dem ca fattaqullaha mastataatum ja mënisu tël yaar yëpp mooy fab sa tànk na ko teg ci lu neex yàlla di jéggi jéego ya ngay man ba ba ngay def nañ ko santaanee moo xam yaa ngi ci kaw suuf si wala yaa ngi ci biir géej wala yaa ngi ci àll bi foo mën a nekk rek nekk faak loola dal ne ko wa in ahdatha zanban saa boo yëgee ne nag yow mi def nga bàkkaar xool nga loo wërta xool wax nga loo wërta wax dégg nga loo wërta dégg dem nga fa wërta dem laal nga loo wërta laal yee salaatal sa tuub rek te wan gannaaw fexe ba njuumte mook ñun lañ boole waaye fexe ba bu dee amit nay sore lool te su boobaa mu tudd njuumte waroom xam-xam yi juboo nañ ci ne lii bu dul ab xadiis it ku ko jël mën ngaa raw say maas nee na texe gu tàmbalee fi jëm ëllëg ñeel na kii kenn ku nekk bëgg koo doon mu ne koo xam ne bi muy dund xamoon nañ ko mu faatu ànd ak ak njëggal yóbbaalewut bàkkaar maanaam laata muy faatu ay bàkkaaram dee nañ fii moom kenn moo dem waaye nag lu metti na na dal kii ñëpp ku ne defee ne moom la ñuy wax mu ne koo xam ne daa faatu yóbbaale ay bakkaaram te fekk tuuba ngi fi moo dem bàyyi fa ay bakkaaram yu ñu koy xoole moo fi defoon nangam te kenn mënu koo weddi te it tuubu ko ba faatu yan nuñ ci Yàlla musal ci suñum réew nag dañuy atte bay atte koo xam ne lam defoon juróom benn fukki at la sa gannaaw waaye gannaaw tuub na ko jeex na war naa jeex day wax ba yàgg nit ne ah xanaa du kii mooy daal di tudd at mu yàgg moo xam ne gone yi fekke wuñ ko bu fekkee tuub na ko moom yàlla toppatu ko ñun nag dañuy toppante bay toppante loo xam ne sax booba suñuy maamaate ke maam juddooguñu woon yàlla nekkul foofa bu jàmm bi tuubee rek mën na koo jégal fi saasi te lu mu digee dana ko def bokk yi ñetti bunt yooyu ma tudd nag nga xam ne seetaan da koy ubbi fëlëngal di wut kum ca bamax saa su nekk te bu ci duggee mu tëj ko ci ginnaawam eh, bakkan ma cay dugg ñaare bakkan waroom xam-xam yi ñeneen yett la an nafsul lawaama an nafsul ak an an nafsul lawaama mooy koo xam ne mooy bi nga xam ne bakkan bi nit yor te saa bu defee bàkkaar mu ne ko diw lii waroo ko woon a def di ko ko wax di ko ko wax ba ba muy tuub boobu moom yàlla nu yàlla booleeg moom te it du ko bàyyi noonu waaye lépp lu baax lu mu nar a romb mu ne ko xanaa xamoon ni lii lu baax la te mën nga caa amee dara waaye an nafsul la bu am lu teewoon nga def ko ndax mën nga caa amee dara te nga ko def ndax nga am ci dara waaye am na bu ñëw an nafsul ammaratu bi su mooy ko bakkan boo xam ne dalay woyefalal yu diis yépp naan la na yàlla weesu na foofu wax na dëgg waaye yàlla moo man lépp waaye lu tax mu def lépp nag ba nit ñëwee ci suñ fallu ne ko yàlla mën na lu ne ba mu des rey gëléem jaaxaanal ko da ko ne yomb ngaa waxal ginnaaw xam nga ne yàlla mooy rey wa yox yi wayu mu it ba muy bind gëléem da koo soobutoon gëléem di jaaxaan ba muy dund sax waxuma laa bu deewee kon yàlla mën na lépp waaye tax mu def lépp ak nafsul amaratu bi suu nag danaan la lii moom garawul diw ñoom ñu ngi koy def wala diw mas na ko def wala xoolal wala ña koy def fexe ba nga def ko ni ñoom ndax mu woyof ci yow ak nafsul amaratu bi suu moom la Seydina Yuusuf doon wax ne wa maa ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratun bi suui illa ma rahima rabbi li ma jëkk wax mooy laa uqsimu bi yawmal qiyaamati wala uqsimu bi nafsi lawaama waaye nag an an an nafsul mutmainna mooy bi nga xam ne bu jëkk ba ma jëkk wax moo koy wammat di ko récculoo safaan bu mu def di ko xiir ci tuub di ko xiir ci mu bañ a romb lenn lu baax te defu ko kooku bu ko tàmmee ba tàmm ko dana mujj du teg bak du teg tànkam fenn fu yàlla teg lu wut duutu laal yàlla laal lu wut duutu xool lum xool lu wut duutu dégg dégg lu wut su boobaa nag su demee ba nga xam ne ak ruu rot moo des euh, day am lu wax ak moom ne ko yaa ayyatuha nafsul mutmainna irjii ila rabbika radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi jannati mbiram daal di jag kon boog yàlla noonu yàlla musal ci sàggan yàlla noonu yàlla musal ci bànneexu bakkan yàlla noonu yàlla musal ci mer dañuy wax ne ku mer noppee muus ku mer ñii jàng lu jëm ci nit nee nañ bu la fekkee nga taxaw toogal bu la fekkee nga toog nga tëdd bu la fekkee nga tëdd néew na muy fekk ku tëdd muy mer ku tëdd moom néew na lu muy mer moom tëdd mer suñ ko defalee rek mën naa def waaye yonent bi saasam bi muy dénkaane daal ku ne ko dénk ma dane ko bul mer mu dellu si waat ca suba sa waxaat ko ko mu waxaat ko ko ci dellu si waat mu waxaat ko waxaat ko ko waaye xam na nag lii dooy naa jàpp ka doon laaj kilifa gu mag ana yoonu dëkk ba tudd ko benn dëkk de da koo joxoñ armeel ya mu dóor ko <clears throat> mu tas ko mu àgg suuf jugaat mu ne ko dëkk ba laa lay laaj mu joxuñ ko armeel yi diggin yaa wuute waaye ba waa tool ya séenée mu koy pes muy jóg di taxawaat dañoo ñëw ne ko xanaa xamee ko ngay pes muy jóg di taxawaat mu ne xaw ma koy ñu ne ko mooy diw mu àgg suuf ne ko jéggal ma mu ne ko yow kat li nga may gaaw gaaw a yëkkati saa boo ma pesee ba ma àgg suuf nee naa yàlla jéggalal waa ji daa xamagul rek kooku kon sore naa mer lool yàlla noonu yàlla dafa dëgg topp te musal seytaane ak pexeem yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin تركت ما كان لي بغير مبتغي